dal leen ak jàmm ci xibaar yi bàyyi ko fii ci Sahel Network TV Banjul di capitali Gambia Banjawaali Mbay la ma indi leen li gën a ci boppi xibaar yi IEC ñoom nag àddu nañ ci jafe-jafe ji nga xam ne mu ngi am foofu ca Brikama Area Council bi kenn ci takkader yi ak xaritam ñoom nag jamono ji jàpp nañ leen ngir soqi bal bi nga xam ne def nañ ko kenn ci pencum ndawal réew mi moom nag maye nag ñaari weeri fayam ngir xeex jàngoro bi ñoo wax Covid 19. foofu ci réewi Amerika wax nañ ne lu toll ci do wax nañ ne lu toll ci benn million yi doomi aadama am nañ jàngoro bi ñoo wax Covid 19 mbokk yi ak yeneen dinañ leen ko indilal ci biir yaatal. Coronavirus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. Make sure you wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. ñu ñëw ak yéen ci wàllu yaatal mbootaay bi ñoo wax independent electoral commission nga xam ne ñoom ñoo saytu wàllu sànni carte gi fii ci biir réew mi ñoom nag jamono jii addu nañ ci jafe-jafe bi nga wala wax ci nga am foofu ca Brikama area council gannaaw bi nga xamee ne nii parti ñuy wax UDP ñoom nag ki nga xam ne leen fa wax nañ na tekki ndombol tànkam liñ bugga mooy ñu tànn keneen teg ko fa ñii nag ñu ngi xam ne ne ñoom amuñ ndigal pour soppi li nga xam ne fa nekk ci jile jamono ba léegi rek ki nga xam ne moom mooy borom kër yi euh, IEC ñu xamee ko ci Joseph Koli moom nag wax na ne benn yoon rek lañ am pour mun a euh, teg nit foofale mooy council bi ci boppam mu binda wane ne ñoom dañ soxla koo xam ne moo leen na mun a dimbale wéyale seeni liggéey ci jile jamono. kenn ci takkader yi ñu xamee ko ci lance corporal Mayada Sarr ak xaritam bu ñuy wax Ibrahima Badji jamono ji nag luwa teg na leen daan ndax dañ soqi bal ci xale boo xam ne mu ngi am fukki at ak juróom-ñaar foofa ca tundi Lamine comme ni nga xame ne moo yor kàddu takk der bi waxee muy Lamine Sagnang moom nag wax na ne officer bi nga xam ne wala ndaw loolu euh, takkadeer boobu nga xam ne moom moo toogoon ci biir ay xaritam doon waxtaan ak ñoom mu génne li nga xam ne moom mooy pistolam bi doon leen ko won ki ñoo wax Ibrahima Badji daal di ko foqar ñi ci loxoom bi mu ko foqar ñi la soqi bal bal ba dal xale boo xam ne mu ngi am fukki at ak juróom-ñaar jamono ji ñoo wax ak yéen nii nag xale bi nag mu ngi si lopitaan bi ñu ngi koy faj waaye ki nga xam ne moom mooy Corporal saar ak Ibrahima Badji jamono ji ñoom ñu ngi ci loxo ndaw loo xam ne mu ngi nekk foofu ci péncum ndawal réew mi moom nag mu ngi toog ci tundi Niamina East jamono ji nag bokk na ci parti bu ñoo wax Gambia Democratic Party ngeen baalal ma mooy jii GDP mu ngi tudda Omar Ceesay wax na nag dina maye ñaari weeri fayam ngir lan xeexe ko jàngoro bi ñoo wax covid 19 ci tundam xaalis bi nag wax nañ ne dinañ ko jël jënd ci ay xarala yoo xam ne dinañ ko yóbbu ci lopitaan yi nga xam ne moo nekk ci tundam ak yenn fere yoo xam ne dinañ ko ci fere fileeg diiri ñaari weer ba léegi rek mu ngi wax ne wala ñi nga xam ne ñoom ñoo jot ci xaalis bi wax nañ ne ñoom de am nañ mbégte boo xam ne dinañ góorgóorlu ba dugal ko ci bunt wér gu yaram gi ci nim gën a gaawee réew bi ñoo wax United States of America moom nag jamono ji xamle na ne li fa am jàngoro bi ñoo wax Covid 19 toll na ci benn million ci réew ma foofale te nag bu ñu seetloo daanaka genn wàlli xaaj bi am na ko fa. ci euh, réew ma foofale te buñ seetloo xaaj yi àddina bi ñoom liñ am moo gën a fës moo gën a bari ki ñeneen ñi jamono ji nag buñ ñu xaymaa lu toll ci juróom fukki junni ak juróom ñett ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan foofa ca réew yi Amérique mbokk yi li mooy woon xibaar yi ñu leen amaloon muy bàyyi ko fii ci Sahel Network TV muy bàyyi ko fii ci capitale bi Banjul ba Ndiawale mbay la jërë ngeen jëf.